yow kii moo war a dajeeg Serigne doomu nday Serigne Ndiaye ngi nii. <laughs> Eh, dégg doomu nday Serigne Ndiaye Moussa Moussa Ndiafar. Moussa Ndiafar ju neex incha allah. lamb ju neex. bu leen xaar na ah, baax na. nee sa diggante bu ñu nee runkum xam ne échauffement ma amu fa yoon sax. xam nga Moussa Ndiafar. waaw bëri na xam naa ko waay. moo jël drapeau chef de l'État. loolu loolu lu fee. jël open. loolu lu fee. jël individuel. barke yàlla loolu fee. bu jour laa am jaay bu mën a bu xet dina ne bési góor a koy bay. moo la nee na moo la ëpp problème. loolu du fee man yàgg naa loolu miin naa ko te moom daa am problème mu ndaama. daa am problème mu ndaama la ko fa Ibou Ndiaye obali ramloo dafa am problème mu ndaama xam nga xam ay bari moo tax waa Tafa Gueye ko mottali quoi xam nga nit boo ko yoree mu nekk so sa poulain xam nga am na yi nga xam ne manquant bi ko ciy dimbali. coriace ngay wax. non non coriace wul de maa ñu ñëw ci Balla Gaye Balla Gaye tey yàlla ko yàlla suñu borom defal ndam guy ci barke maam Serap Fall incha allah ama seen junior gis ngeen démb ki nga xam ne mu indi la mel noonu la ko bindee boña daa gaaw mais jour am appliqué